samedi bi ñu génn yëmbal sud yëngu na bu baax a baax ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy responsable APR yi daan nañu amal benn sargal kii di président Macky Sall te kii di Modou Mbène Diop ñu daal di koy tabb jamono gi ñu génn li nga xamante ni moom mooy ambassadeur itinérant fa nga xam ne mooy présidence doon fësal li nga xamante ni Macky defal na leen ko biir yëmbal nag foo sànn mbaat mu taal ndax nit ñëpp dañoo daal di génn ngir daal di ñëw jàppale Modou Mbène boo nga xamante moom moo daal di jiite liste proportionnelle bi nga xamante ni moom la ñu daal di tekk ci yi jëm ci yëmbal sud moom xamante ni gis na ñëpp ñu jàppale ko ku ci mel ni ministre Amadou Hott maire bi nga xamante ni moo nekk sa yëmbal nord maire bu Kër ak yeneen responsabilité yi muy fësal li nga xamante ni gis na ko tey ci fa nga xamante ni moo yëmbal tey wane na seen cofeel ci sunu seen président Macky Sall wane aussi seen cofeel ci man mi xam tey seen seen mbokk seen dëkkandoo le président Macky Sall tey tan ba tudd yëmbal defal ko ndombal tànk ambassadeur tey nag moom moo nekkoon loo xam ne su mag la ci man jëloon di sargal sama sax le président Macky Sall di ko wan cofet bi di ko wan aussi engagement di ko may aussi di ko remercier ci reconnaissance bi nga xam ne am bi ci doomu yi reconnaissance bi xam ne am na ci coalition bi loolu moo tax ñu mën a woo tey woo suñu ay ndaw woo suñu ay jigéen woo suñu jeunesse féminine jeunesse ak réseau des femmes ñu ñëw tey pour sargal sama sax ginnaaw ci loolu nag mu mel ni am na ab programme boo xamante ni moom ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ëmb yëmbal ak kii di ministre bi teg nañ ko mu yëmbal lu bees ngir daal di yóbbu yëmbal ci yeneen doxalin. ci tey ak tey dama ma ne tey ñun ñu ngi àndoo day man ko balaa président Macky Sall décidé ñu xool lan mooy intere yëmbal si xam tey yan capacité yan possibilité la amul am tey ba nu accepté la yoon mais am na ko lañ liggéey suñu dëkk ànd liggéey suñu commune ànd ko ak nekk ak responsable yi xam ne ñoo fi nekk ñëpp sans condition quand on lu bees ça ça tout dire parce bu ne sa yëmbal si lu bees maanaam projet yëpp a ci biir aussi gis nañu xàq yoo xam ne changement yi xam ne am na aussi kon ñu jàpp nañu aussi yelloon na aussi ak liñ ci moo koy tey loolu mën a am kon loolu yëpp sant yàlla la yàlla jàppale ñu ba loolu yëpp mu mën a nekk tey ñi gërëm aussi responsable yi fi nekk yi bàyyiwuma kenn yaa responsable des femmes euh, des des des jeunes bu nekk sama côté euh, di Mariama Ndiaye yaa aussi responsable des femmes bu nekk sama côté di Awa Thiam ñëpp ñu ànd di ak ni ma jëyee kulim ju maanaam sama waa Maguette Diop sama bopp laa maa ngi gërëm ñëpp tey ñoom ñëpp tey wane nañ ne président Macky li mu def nii am nañ ñoom seen bopp yéen a wax wane nañ ko maa ngi gërëm ñëpp di gërëm Yeumbeul si di gërëm département Keur Massar di gërëm département Fatou Ndiaye aussi di gërëm son excellence le nga xam ne tànn na ma ci doomu doomu doomu réew mi jël ma. askan nekk ci bët si ambassade bi de la République aussi mbégte la boo xam ne wan yëmbal si wan ne ko ne tey jii tey boo xoolee ni ñoo yëmbal si yëmbal lañ dëkk demuñu fenn ab ay nit réew yëmbal si lañ jógee ñëw tey fi tey pour yëmbal sud dafa mel ni jamono ji li ñuy wax naan yëmbal lu bees daan nañ ko dëggal ndax sand bi ñi nga xamante ni ñooy waa APR ak Benno Bokk Yaakaar daan nañu fësal li nga xamante ni bëgg nañ ko am ci yëmbal sud muy nangu maire bi ci loxo ki nga xamante ni mooy Bara Gaye ba tax ñu am ab sargal bu mag boo xamante ni ndaa si seet lu toll si ay junni junni nit yoo xamante ni ñëwoon nañ sa terrain ba ngir ñëw jàppale ki nga xamante ni mooy Modou Mbène Diop mi ñëw woote woon bés boobu ngi daal di nga xamante ni mooy président Macky Sall